depuis ay at yi at yi at ci ngi wax ay problème urgence jël nañ ci ay note de service am na ay loi fi teg ci réforme hospitalière ay directives yu ministre jël ay directives yu président yi fi jaar yëpp jël pour ñu régler problème urgence yi gis nañ ni population yi doo xëy benn bés boo déggul ni diw sa faatu parce que jël ñu ko en charge diw dafa dem jóge dëkk ba dëkk amul lal vraiment loolu moo taxoon moo wundu woon concertation yi ñu defoon en 2019 bi nga defee ba pare nag may forte recommandation ñu liggéey ci bu baax saytu ko saytuwaat ko demaat ci terrain bi analyser waat li toll ci tabax yeeg équipement yeeg personnel yi médicament bi ak consommable bi ñu xam ne lii ma fi nekk lii mooy jafe-jafe bi ñu def suñu plan stratégique nga xam ne fii ak 2026 Inshallah, allah lépp lu ñuy dund fii ci ci euh, si urgence dootuñu ko amati parce que wax dëgg yàlla gën doonoon doonoon jël ay matuwaay ci affaire urgence mais mosuñu def benn plan stratégique boo xam ne dafay couvrir Sénégal gi yëpp poste de santé bu hôpital national rafet na njott ne buñ ko financé bu mettre en œuvre rafet na njott na aussi fii ak 2026 problème yi doon dégg yëpp ci affaire urgence dina fi jógee incha allah bu baax a baax a baax am nañ léegi feebar yu bees yu génn te amul woon maladie cardiovasculaire yi Euh, boo ñuy def accident ci ci tali bi ak ay dama-dama yoo xam ne dafay soxla ay imprant pour ñu faj leen ak yeneen ak yeneen yooyu nag duggagul suñu système d'approvisionnement problème la ça coûte cher 500000 1 million ba 2 millions sénégalais yi mun ñu ko jënd fekkee boo nekk situation d'urgence loolu taxaw nañ ci ba nga xam ne incha allah léegi léegi ak PNA ak code des marchés bi ñu fexe ba nga xam ni lépp li nga xam Sénégal Sénégal soxla soxla na ko en situation d'urgence quelle la nature de la maladie dinañ ko mën a am yokk ci aussi fexe ba ni daan demee ci hôpital soo demee suba ñu bindal la ordonnance midi ñu bindal la ordonnance loolu dañu bëgg jëlé ko fi fexe nga xamné malade bi ñëw en situation d'urgence lépp lu mu soxla ci garab naka fay fekk ñu fag ci anam yu gëna a sell accompagne bu doon suñu sago malade am accompagnant parce que normalement malade bu ñëwé lépp li war ci mom wa keur docteur dina ko def mais cela veut dire dafa laaj ay personnel bu bari ku lay sangat ku lay jox nga lekkat bi démé noonu moo tax li ñu mën a def actuellement ni dañuy limité parce que aussi loolu bokk na ci environnement des soins hôpital mu nga ko defar ba mu rafet def ci ay sa ay draps yu baax dafa sa ay espace vert dafa sa ay toilettes benn malade fukki ñu topp ko jëfandikoo toilette yi fanaan ci kaw lal bi yàgg dafay indi problème loolu moom bokkut ak dara plan bi loolu comportement yoo xam ne dañu ko war a changer ak loo xam ne ay directives yu jox euh, directeur yi ba nga xam ne un malade un accompagnant ba nga xam ne lépp dina mën a jaax yoon